alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah bokk yi ñu bokk sant borom bi subhanahu wa taala cher na mu benn bu dul war a jaam bu dul moom noo ngi balu àq ñëpp te di leen balu àq tey ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu bokk ñu jéggal ñu ñëpp bokki suñu xutba tey mi ngi jëm ci xadis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne unzur aqaaka zaliman aw mazluma na ngay dimbali sa mbokk bu tooñee ak buñ ko tooñee yonent bi sansam nee na nit dafa war a jàppale bokkam mbokkum julitam bu fekkee ne dafa tooñ da ko war a jàppale buñ ko tooñee da ko war a jàppale xadis boobu bi ko yonent bi sansalam waxee benn waay jóg na ko yaa rasulullah nit de xam nan ne su fekkee ne la dañ koo tooñ xam na nun koy jàppale waaye bu tooñee xamuñu nun koy jàppale moo tax mu ne naka lañ koy jàppale bu fekkee dafa tooñ bu boobaa yonent bi sax sam nee na koy yiir ba noppi xamal ko ne ko yaa tooñ ca tere ko tooñ bu boobaa nee na jàppale nga ko nit ki nga xam ne dafa tooñ nga ne ko da ngaa tooñ bu boobaa jàppale nga ko xadis bu Buxaari ak Muslim moo ko nettali bokk li waral xadis bi mooy dafa am ñaari xale yoo xam ne danoo jotee ben xala bi bokk ci almuhajirin beneen xala bi bokk ci waa lansaar ñoom ñaar ñu jotee mel na luy xeex wala ñu dóorante ñu jekki-jekki xala bi bokk ci waa muhajirin ne yaa lil muhajirin maanaam woo ay bokkam ngir ñu ñëw xala bi bokk ci waa lansaar it wax na yaa lil ansaar yi yonente bi saa sallam tëll ne leen waaw lan moo waral ngeen yi woote woote jaahiliya gi lu ko waral maa sa daawa ahlil jaahiliya ñu daal koy tontu ne ko ñaari xale yii yonente bi saa sallam ñaari xale yii danoo jotee di dóorante bay bay bay waaji reyante kenn ki fa kasa ahaduma mooy kenn ki dafa fekk nit benn xale bi ci maanaam jële ko gannaaw rek mën na ku ko wéq ci gannaaw mooy kasa al kaso mooy dóor boo xam ne dafa gannaawee mu wéq ko ñu dem ba maanaam mbir mi ëpp doole ba kenn na cee loro yonent bi sax sax na ne loolu ayut waaye nag su boobaa kenn ku ci nekk na dimbale mbokkam wal yansur wal yansur rajuli aqaahu zalima aw masluma ca la yonent bi sax sax wax ne nit day dimbale mbokkam bu tooñee wala buñ ko tooñee ñu ne ko waaw nit de buñ ko tooñee mënees na koo dimbalee ndax dañ koo tooñ waaye bu fekkee dafa tooñ nag noo koy dimbalee yonent bi ne da koy tere tooñ nit bu tooñee da nga koy su boobaa dimbali ko xadis boobu nag bokk yi dafa am ay tomb yuñ ci génne yoo xam ne dañ koo bëgg a labrinte ak bokk jullit yi muy ay njariñ bi ci njëkk mooy ci biir xadis bi danañ ci dégg ne par parloo baaxu par parloo baaxul nit wërta par parloo ci lépp lu mën a doon moo xam da bokk ci askan wi askan wii danoo jotee ak askan wee saw askan tooñ askanu jàmbur nga jàppale saw askan bu boobaa da ngaa par réew mii danoo jotee ak beneen réew maanaam Sénégal jotee ak beneen réew nga doon ab sénégalais tax nga jàppale sam réew fekk sa réew ñoo tooñ bu boobaa yaa ngi parparloo wala li xew ci jamono nit da ngeen bokk ab sëriñ da ngeen bokk ab sëriñ wala ngeen bokk ndey wala ngeen bokk baay mu nekkul ci mu nekk ci toñte bokk ngeen bokk sëriñ tax nga jàppale ko te léegi-léegi da ko ciy dégg da dégg nan di da ngay dégg-dégg léegi-léegi taalibe nan ah diw de maa ngi moom ñoo bokk sëriñ ci dëkk kon war naa koo jàppale wala diw de maag moom ñoo bokk nangam kon war naa koo jàppale bu fekkee dafa nekku ci ci ci dëgg da nga naan ko nekkoo ci dëgg bu fekkee rek joo bokkal ndey ak baay la sax nekkul ci dëgg da nga naan ko nekkul ci dëgg bu fekkee dafa tooñ da nga naan ko diw yaa tooñ waaye li ëpp ci nit ñi léegi ci par par loola nekk bu fekkee doom joo jur la wala jarbaat wala mbokk wala ku mën a doon nekkul ci dëgg da nga naan ko nekkoo ci dëgg donte da ngeen a bokk deret léegi nag loolu amatut li ci ëpp ci nit ñi sa mbokk mooy tooñ nga farle ko bu boobaa nag la yonente bi waxoon defoo ko bu boobaa da nga ko yonente bi sallallahu alayhi la mu defoo ko kon dana dégg ci hadis bi ne par parloo ci wàllu xeet wala giir wala dareet wala mbokk l'islam da koy tere muy benn ñaareel ba mooy danañ dégg waat ci biir hadis bi ne nit ku ci nekk da war a taxaw ci dégg doomu aadama dafa war a nekk taxaw ci dëgg su fekkee ne nit lay tax mu taxaw ci dëgg mooy donte yow ki nga bokkal wala ki nga féeteel wala ki nga jegal moo nekkul ci dëgg nga ne ko eh nekkul ci dëgg léegi nag dañuy gis loo xam ne bokk yi kii nekkul ci dëgg ñu bëgg koo ne ko ci dëgg te ci dëgg loolu nag jaaduwut ca bari na ci ñoo xam ne seen mbokk day day day tooñ ñàkk nekk ci dëgg ñu ne ko yaa ne ci dëgg attan ci lu la nag lu la ñu attan ko ci ngir ne ko rek yàlla ne ci dëgg wala mu génne kàddu goo xam ne du dëgg nga ne ko yàlla ne ci dëgg wala mu doxale noo xam ne du dëgg nga ne ci dëgg su boobaa nag jëfewul yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci xadis bi kon nit day taxaw ci dëgg lu coori bari bari bari lu problème bi bari bari bari ak problème bu mu mën a doon lu jafe-jafe yi bari bari ak jafe-jafe bu mu mën a doon féeteel dëgg féeteel fi dëgg nekk donte kat ka nekkul ci dëgg mooy sa bopp sax féete ci dëgg nekk xulil xaq wala wul yaa fi kii na yaqtalu ko daan salaa sallam waxal dëgg donte doo teg paako buñ jëloon paako teg sa dox bëgg laa rey bu dëgg jotee waxal dëgg gars yi nag doxewul noonu kon li ngay dimbalee sa mbokk mi bu fekkee ne dafa tooñ da nga naan ko sa waay yaa tooñ bàyyil tooñ léegi nag da naan ko yaa na ci dëgg foo waaye fu mbaxana nekk benn nan fa dem maa lay jàppale loolu moo fi am maa lay jàppale bu dee ku am kaddu wala mu am alal kaddoo ma tax mu ne ko maa lay jàppale waaye xam na ne kii nekku ci dëgg wala alal tam tam bu ko jàppale ci xam ne kii nekku ci dëgg su boobaa nag génn na ci li yonte bi sax waxoon ci hadis bi unzur axaaka zaliman aw mazluma ma war a dëgg moom fu mu la fekk na la fa baax dëgg fu mu la fekk na la fa baax ak lu métti métti wax ko ci yàlla tax bu ci xool dama cee rus diw diw a tax mun maa wax nàngam ab jullit di doxa noonu ab jullit lépp loo xam ne xam na ne muy dëgg ca wax ko war koo jot ca xam na ne lii mooy dëgg na wax dëgg ji rek ci yàlla tax bañ cee parparloo waaye nag lépp ci jullit yi léegi dañuy parparloo léegi mais da ngay gis koo xam ne sax maanaam sa intérêt la yor mu nekk nekk ci dëgg nga gis nga xool intérêt ne ko yaa ne ci dëgg déedéet loolu du leen lu mu nekku ci dëgg ne ko sa waay eh ci dëgg bu doxale nii nii nga war a doxalee bu dee sa dooma nga ne ko nii nàngam nangam bu dee sa jarbaat la nga ne ko nangam bu dee sa sët noonu bu dee sa soxna nga ne noonu bu dee bu dee bu dee bu dee waaye nag xam ne kii nekkul ci yoon ba noppi nga ne ko yàlla ne ci yoon loolu ma ak par par lool te li ëpp ci doomu aadama yi loolu la def kon loolu des na ko jàng ci xadis bi bi ci des mooy de sa jàng ci biir xasid yi xadis bi mooy jullit yi dana war a jàppalante jullit yëpp dana war a jàppalante jàppalante doon benn kenn ku ci nekk sa yitte sa moroom di sa yitte sa bëgg-bëgg sa moroom di sa bëgg-bëgg kenn bañ setaan kenn ci aajoom ak yitteem waaye julliti léegi soo ko soo xoolee julliti léegi kenn ku ci nekk fa ngay jàppale sa fa ngay jàppalante sa mbokk moo fa ngay jàppalante mooy mbokk mi nga xam ne rek moo la gën a jege moom yitteem yaa ngi ca nangam ak nangam mais dëkkandoo bi nga dëkkal ci muy ab jullit na yow nag war ngay taxaw ci ay yitteem li ci mën a góor góorgóorlu loolu mbokk yi daan ko jàng ci hadis bi kon jullit yi na ñuy jàppalante jàppalante gi ñuy jàppalante nag buñ ko jàppalante te ci benn côté yow am murid nga kon murid bi la war a jàppale ki ab tijaan la tijaan bi la war a jàppale ki ab xaadir la ab xaadir la war a jàpp déedéet innama al muminuna ixwa jul yépp ay bokk la gis nga wàllu tariqa wàllu tariqa ay yoon la yoon yuy àggale nit ci yàlla ay yoon yuy àggale nit ci yàlla mooy wàllu tariqa boo boo déggee ñu ne ab tariqa sax mooy yoon wóor ta sax it jullit yi non non wala ñuy teqalikoo wala ñuy ñàkk a waxante dëgg wala ñuy jàppalante wala dimbalante waru tax kenn ku ci nekk bu fekkee ab jullit nga mu def julli rek taxawaay ba war ca yow ak ca moom def ko bul xool ne kii ab nangam la ab xaadir la ab laayeen la ab nangam nangam déedéet yow war nga koo jàppale jàppale ko kon loolu war nañ koo jànge ci biir xadis bi beneen bi ci des mooy te mu bokk ci li war a jànge xadis mooy dimbale sa mbokk ci bu tooñee wala ñu tooñ ko fardu kifaaya la bu ko ñenn ña taxawee wàcce na nen ñi mi ngi mel ne julleem néew wala gungam néew fardu kifaaya la bu ko ñenn ña defee wàcc na ñenn ña noonu la dimbale sa mbokk bu fekkee dafa tooñ wala ñu tooñ ko mu doon fardu kifaaya ñu ngi koy àtte ci tribunal ba wala yóbbu nañ ko police wala yóbbu na ko nangam nangam ñenn ña buñ taxawee taxawa yooyu taxawa loolu wàcce ñu ngi ci des loolu des na ko jàng ci biir xadis bi beneen bi ci ci ñu bàyyiloo waxambaane yi jàngat biñ ci war a def ci biir xadis mooy waxambaane ku ne xam ne ne bu toll si digg dooleem mën nay falaxa rek mën nay falaxa lu ko neex di def waaye liñ ko war a tàggat ci kattanam googeeg dooleem jooju mooy bam bañ di tooñ mooy mu jariñ am réewam te jël kattanam googu dem jaame ko jaama ji ko yàlla waaye entraîné na ba jàpp toll na mbërum làmb waaye kenn du wax ku wax nga tëral ci kaw suuf bu ne boo nekkee ci dëgg boo nekkul ci dëgg sëñ bi loolu ab jullit du ko def te kattan gi la yàlla jox bokk yi yàlla dafa ko jox ngir nga jaamoo ko waaye joxulu ko ngir nga lor doomu moo tax làmb dafa xaraam de gis ngeen làmb làmb bëre daganul mu ne neexu neexuta wax nag suñu réew mii di Sénégal moom xam nga li tax làmb daganul dóorante bi ak gaañante bi ak wuññante awra yi dégg ak yeneen yañ cay def xërëm yaag njabar yaag lor ca nit ak yooyu mooy tax làmb dara dagu yi ak jaxasoo góor baag jigéen yëg ca ca am yëpp après làmb sax moo gën a garaw après làmb agression yi ci am mbokk yi moo tax làmb daganul seetaan ko sax daganul làmb daganul seetaan làmb daganul te fu ndoole nii ne aka naqaree dindi ci réew mii ndax koo ca gis mu ne dama yóbbu dama cee bëgg a taral yóbbu sama baay màkka wala sama yaay màkka wala nangama nangam alal ja ngay sàkk lépp lu dëggandu alal joo am dëgganut mais alal jooju mënut a yóbbu kenn màkk demul màkk tambakul jumaa deful dara ci lislaam alal ji alal lilaam ndax dëgganut kon loolu nañ ci bàyyi wala xel kon ndaw li bu amee bu amee kattan kattanam googu na ko delloo yàlla na dem jaamu ji ci yàlla def ci lu baax moo gën mu di ko korfañ ay nit di dóor di pattali ba tëkki dam maka jënd yeneen kon loolu bokk na si li war a dégg wala ci xadis bi beneen bi ci des mooy ci biir ndaw loolu ak ndaw dafa gaaw ci xamul lu koy mujje ndax kenn ku ne xam nga looy mujje bokk yi ku xam sa mujj ëllëg amul ku dul yàlla moo tax di ñaan yàlla di mujj mujj gu rafet lu am solo la ginnaaw yoo xamoo lu lay mujjee ci xamoo fan la lay dee di bettee gaawal gaawante jublu sa borom subhanahu wa taala léegi nag nit ñi moom li ni li ñu jàpp mooy xale du faatu damay dox sama ndaw ngay dégg dama kàttan la rajo nga damay dox sama ndaw ba ci suñ mbokk jigéen yi sax jigéen yi da ngay gis koo xam ne mbokk yi du julli du woor du def dara toll ci jànku wala muy ab jeeg bu mag soo waxee mu ne damay dox sama ndaw su ma amee nangama nangam balaa booba yàlla mën naa jël ruwa mu faatu kon dox sama ndaw am te yàlla dee moom xamul ndaw xamul gone xamul mag kon loolu war nañoo dégg ne nit ki xam ginnaaw xamoo lu lay lu mujj rek am po da koy teel dagg da ngay de teel a bàyyim fo soo xasee mësoor jublul yàlla xam xudud yi bañ koo jéggi loolu bokk na ci li si war a dégg bokk na ci li war a dégg tamit ci xadis bi ci ñaari gone yooyu nga xam ne ñoo waraloon yonente bi saa wax lii mooy mën naa indi guerre ndax famille bee bu ñëwoon ak famille bii famille bee muhajiri ak alansaar yi bu ñëwoon nga xam ne yonente bi saa daawa ahli jahiliya leen wax bu kenn ku nekk sa famille ñëwoon kenn ku nekk jàppale sa mbokk du indi guerre bari na ci mbokk yi problème bu am ci kër wala ci pénc ay gone ko indi ab ko fa indi problème dana am ci pénc ab famille ab famille ko fa indi problème dana am ci kër ay gone ko fa indi léegi-léegi da ngeen koy gis jeeg gi sëy ci kër gi kii day dóor sa doom wala kii wax sa doom daa nga dóor doomam problème ba daal di am ñu xuloos man caa xeex ba lu na am ca ñaari gone yi ñoo ko waral ñaari caari taalibe na ci penc di ruuxale dem ca sëñ bee waxale sëñ bee waxale sëñ bee waxale ba ñaari sëriñ soo ci teqali ko day am wala ñaari famille na ci penc fay boobu fexe ba ruuxalante ba penc ma am problème te ñu ngi koy gis man Abdullahi lu ma la wax rek am naa ci ay firnde te ñu ngi koy gis ci penc yi léeg-léeg da gi dem ci askan du am na am soo xam duñu laalante duñ bëgg a gisante léegi nag ñooy bokk ndey ak baay la leneen ruux ak leneen yàq ña ngi ca biir famille ba yooyu nag bokk yi baaxul kon lii yonent bi sax wax ne bu fekkoon ne waxu leen loru waa muhaajir ñëw waa ansar ñëw xar ba mën naa am guerre te ba boobaa musiba war naa am moo tax yom sansam ndax ndax ne da ngeen ñuy def jëfi jëfi jaahiliya loolu kon war nañ ko mën a dégg ci xadis bi beneen bi ci des mooy muy fukkeel bi mooy bokk yi problème bu amee ña ko yëg balaa problème ba tasaaroo nan lijjanti problème ba ñun nag duñ lijjanti problème dañuy bàyyi ba problème tasaaroo ñu soog di jóg di lijjanti problème kër gi am na problème ñoo war a lijjanti problème bi nañ ko lijjanti te par parloo bañ ca am pénc bi am na problème ñoo war a lijjanti pénc bi nañ ko lijjanti te par parloo bañ ca am marché bi noonu dégg nga feneen ak feneen noonu mais dañuy yëg problème bi ba noppi bàyyi ba problème ba màgg ñu jëm koy lijjanti kañ lay sotti problème ba da daal di law su ko defee ak noonu akum bañu daal cay juddu kon xallul masakil maanaam solution bala problème mag war nañ koy mën a taxawal léegi nag ñu bari dañ def loolu dañuy bàyyi ba lépp mag yow lii waroon nga ko mën a saafara nga bàyyi bam misaal dama la jox misaal rek léegi léegi nit ak soxnaam na ci biir kër gi jotee ñu war koo lijjanti dañuy bàyyi ba dóorante am ñu soog di jóg di jóg c'est fini jeex na loolu xàllu ba la ci am mën nañ caa demante police wala lu mën ak lu mën a doon loolu mel noonu mag ñi bu njëkk ci biir léegi bi lañu daan waxtaane lijjanti problème yi te du egg ci penc bi léegi nag problème yi de àgg ci ba ci penc bi weesu penc mi dem ca tribunal yi weesu tribunal yi dem ci àdduna bépp kon war nañoo jàng ne maanaam na ñuy turee ay solution balaa problème yee gën a ëpp suñu loxo te nag mbokk yi problème yee nga bari kër goo ci dugg muñ mun jo ruq-ruq jo àndew te naqaree lijjanti lool ca kilifa yaa nga ca biir kër ga am na ci loo xam ne xam nañ ko waaye danoo bàyyi danoo seetaan duñ ko def soo liggéey nag njaboot gi tasaaroo kenn ku ci nekk jàppal sa morom dara su boobaa dooñu bàyyi dooñu bàyyi teqali ko sax dañ ko gis te loolu dara waralu ko du ay problème yu am ci kër yi kon war nañoo mën a di di di di xàllu masaakil yooyu balaa balaa ñu àgg foofu moo tax yonent sanso wax ne kon kon fukk yooyu mooy fukk yi nga xam ne bokk yi war nañ ko jàng ci biir xadis bi xadis bi ci des na mooy fi ñu mujjante yonent bi sax tam nee na na ngeen ragal ñaanu kun tooñ nit boo ko tooñee ñaan gam lay ñaanal yonent bi sax tam dee ko ragal yàlla nee na bis bu la ñaan nga lu mu mën a doon donte ay jamono la wala xiinin fi ba yowmal qiyaam yàlla nee na ñaan googu mën naa ñëw ma nangu ko beneen bi beneen riwaay dikk ne dee leen ragal ñaanu kun tooñ donte ab yéefar nga tooñ yéefar bi bu fekkee yaa ko tooñ mu ñaanal la yàlla donte ab yéefar la suñ borom nee na ñaan googee dan mën naa ko nangu donte ab yéefar la beneen bi ci des mu wax ne dee leen ragal ñaanu ku tooñ donte ab kàccoor la nit koo xam ne ab kàccoor la nga tooñ ko kàccooram googee moom lay jariñ moom moo moom moog yàlla waaye tooñ googee su la ko baalu bu àllëgee yàlla bu ko ñaanee bu la ñaanee yàlla mën na koo nangu kon yooyu yëpp bokk yi war nañ see bàyyi xel moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee képp ku tooñ sa bokkum jullit moo xam da ngaa teg ci ab daram lu ñaaw wala nga jël alalam wala yu mel noonu nee na balaa ñoo dem bis penc nga xam ne alal amu fa dina am amu fa jéem leen koo lijjanti fii balaa fee jëm ndax fekk buñ fa xasee egg nee na jëf ju baax la yàlla di jël di faye ay tooñ waaye du alal ak i ak diina ak dira ak i kon nag loolu ñu bàyyi ci xel su boobaa tamit jëf ju bon la yàlla di jël di delloo ki ki nga xam ne moo tooñ waaye du ay dërëm waaye du ay ay ginaar moo tax bu demee ci na nafis sëñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu nee na tooñ ñaar la nit da ko tooñ ci alalam tool ko ci dërëm nee na ki nga xam ne da nga koo tooñ ci alalam da nga koo sàcc wala mu lebal la fayoo ko wala nga mu trial wala nangam nangam sëñ Tuubaa nee na bu fekkee ne kooku ma ngay junj dama delloo ko alal ja ne ko ah sa waay lii kat maa ko sàccoon sa waay lii kat yaa ma ko lebaloon sa waay lii kat maa la ko trial maa na def loolu nee na bu fekkee ne nit ko faatu nit ko faatu na yàlla dogal nga bëgg koo fay alal ja fekkal way donnam ña ko war a donn nga leen diw seen baale wala seen maam seen nang alal ji ci moom laa ko jële woon maa ko sàccoon maa ko dem naa delloo bu fekkee ne gëstu nga gëstu nga ba gisoo kenn ko mën a donn sëñ Tuubaa nee na sarkal alal jooju boo léegi yool ba fekk yool yool boo dee nga sarxe boobaa ba ñu jox ko waaja muy benn ñaareel tooñ bi mooy ci der dangaa xas ni wala nga jëw wala nga tuumaal nga waxal ko ba mun ta jaar ci penc mi mun ta génn këram li xew jamono jàkki-jàkki rek wax ci nit loo xam ne yow xamoo ci dara diw nàngam diw nàngam yàqub deram jëw ko def ko lu nekk dégg nga sëñ Tuubaa nee na nang nang ka dem baalu ji àq balaa bi sëñ ñëw na ko sa der bi kat maa ko yàq maa ci def nangam ak nangam nee na su fekkee ne defoo loolu bu demee ba yowmal xiyaam akbar jot bis boobee nee na fayanti koo ci ay der amu fa sëñ Tuubaa na bu boobaa sa jëf ju baax ji nga jëf moom la li jël jox dañu jël jox ko ci la lay fay kon nag képp koo xam ne amel nga nit ki ak toñange fii ci àdduna bu fekkee ne loo xam la demal nga baalu ko àq jéggalu ko bu fekkee ne loo xamul la ñaanal yàlla mu jéggalu ko su dee alal ak yu mel noonu demal ngeen delloo ji ko wa anna al xiyamata ati lu àdduna yàgg yàgg yowmal xiyam dana ñëw te yowmal xiyam bu ñëw yàlla dana dajale ñëpp te kenn ku ci nekk dana ati wa kulluhum atihi yowmal xiyamati farba yàlla yàlla dafa déggal topp yàlla yàlla jéggal képp koo xam ne amee naa la tooñ maa ngi la ko jéggalu ci yàlla tax képp koo xam ne nag tooñ nga ma man jéggal naa la ko ci yàlla tax yaxfirullahu lana wa lakum wa li shaari muslimin amin